tëkk na lu nekk dund na lu nekk mais macha allah mi ngi taxaw fi muy taxaw attaqué wul deful dara mi ngi sur la défensive mais défensive boo xam ne maanaam dafa ànd ak résistance maanaam mooy taxaw bañ mën ngeen maa rey mën ngeen maa rendi mais du ma leen ko yombal loolu yàlla moo ko santaane. Mm-hmm. lu tax ànd ak lu tax demoo. nga ànd ak moom parce que. loolu loolu yomb na loolu yomb na expliqué yomb mm-hmm. na expliqué lu tax. Mm-hmm. Sonko panafricaniste la. Mhm. man je suis xam nga nag il faut ñu respect non. saa moom dafa gën a yaatal ah xam expliqué la c'est-à-dire non non ah. non dafa naan il faut te loolu Sonko nangu na ko je le sais. Mm. il faut ñu nangulante. suñuy mm-hmm. différence parce que si suñu différence maanaam si lañuy amee xam-xam si la ñuy amee richesse c'est ça ah. la vie Sonko euh, man ak moom mën naa ne jusqu'à quatre-vingt-quinze pour cent am na loo xam ne mën nañ ko déggoo. Mm. te loolu am sax. mais y a des points yoo xam ne du ma ne déggoowuñu ci mais xëj na waxtaanaguñ ci mais man dama gëm benn affaire dama gëm ne l'urgence c'est les Sénégalais et le dama gëm ne li jiitu ci set setal bi mooy maanaam yow sa kër set balaa ngay set setali mbedd bi te li ma gëm mooy Sénégal ak doomu Sénégal naa nag Sonko gëm na Sénégal a doomu Sénégal parce que dafay wax mais dafa am leneen lu ci rax mooy maanaam loo xam ne affaire unité africaine yooyu man waaw maanaam yaatal ko ba Afrique bi yëpp voilà mais man loolu ñàkkuma ko gëm mais dama jàpp ne heure bi nii pour man mënul nekk. jotagul no sama xalaat lay wax pour man mënul nekk parce que dama am li ma gis am lu ma am vision bu ma am. te mën naa jum mais tam dama koy exprimer de façon très sincère et entière. Mhm. dama gis ne que heure bi nii Sénégal dañu war a liggéey suñu biir defar suñu biir defar suñuy doom ba nga xam ne ëllëg yeneen dëkk yi dañuy inspiré wu si ñun. Mhm. man loolu laa gëm cest à ni ma Maroc inspiré dama gëm ne Sénégal war na mën a liggéey loolu noonu ba inspiré yeneen pays yi nga xam ne moo mooy moo nekk suñu côté région man loolu gëm mhm. parce que da ngay mel ni lu mel ni Maroc lu mel ni Tunisie lu mel ni ay Algérie man pour man ay dëkk la yoo xam ne dañ may inspiré dañ may inspiré déjà si seen identité nationale dañ may inspiré si seen hymne national dañ may inspiré maanaam lu doxale seen biir dëkk hymne national bi nga suñu hymne mook dessin animé yi ñoo yam bu fekk dessin animé yi sax tanew ko. no non non parce que suñu hymne non non non non neex nga ne moo dessin animé mais lan la bindu lu neex. Senghor lan la def waaw parlons de Senghor léegi ah. Senghor lan la def lu dul xaj ñu suñu identité xam nga Senghor dafa ñëw mm-hmm. gëmloo ñu ne tubaab mooy lu gën a baax ci ci ñun gëmloo ñu ne la vérité sonne blanche man gëwuma loolu Senghor dafa ñëw gëmloo ñu ne golo bu ñuul moo am golo bu weex amul maanaam. non c' la vérité soo demee Google nga tapé par exemple un singe automatiquement on t'amène un singe noir il faut que nga insister sur un singe blanc pour que nga xam ne golo bu weex am na maanaam daf ñu gëmloo ne lépp li nga xam ne am saa son tubaab moo baax si ñun mais c' est totalement faux Sénégal fii amuñu identité nationale. fii on n'a pas d' identité nationale. maanaam loo bëgg wax foofu. non na nationale manaam mooy nekk sénégalais. bañ a complexé assumer suñu Sénégal assumer suñu suuf assumer suñu guy nga xam ne moo ñu jox buy assumer maanaam suñu dugub nga xam ne moo ñu jox cere at ay fonde at ay ruy assumer ko assumer suñu làkk bi nga xam ne maanaam moom la ñëpp di làkk plus de quatre-vingt-dix-huit pour cent des wolof. Mm-hmm. nga bokk ci waaso nga ñàkk ci bokk da ngay làkk wolof. Senghor ñëw ne non wolof bi teg leen ko de côté Senghor ne non même dans la constitution je vais faire en sorte de noyer la langue alors que at loo mënti bañ bañ wolof nga xam ne wolof moom la ñuy gën a làkk Sénégal lu tubaab bi réussir si dëkku ñag yi si français am réussiru ko Sénégal xam nga dëkku ñag yi soo demee ay Togo ay Côte mhm. d'Ivoire et on parle plus le français que les autres langues mhm. mais c'est le contraire au Sénégal waaw parce que foofu tamit dialecte yi dafa bëri non non dialecte yi fépp la bëri même soo demee France Abidjan par suñ ba jëlee par exemple Abidjan la fa nekk si ay dialecte nekkul Sénégal non non xam nga lu am solo mhm. loolu yëpp amul solo am lu am solo bi c' est quoi sa langue véhiculaire xam nga langue véhiculaire mooy làkk bi nga xam maanaam majorité bi ñëpp moom la ñuy làkk te làkk ko terewul tukulër bi kon ne nekk tukulër terewul joolaa bi nekk joolaa terewul mandeng bi nekk mandeng terewul kenn nekk lu mu doon mais làkk la boo xam ne moo tax maanaam ñaar ñi bokkul waaso daje ba sëy xamante waxtaan ci ba sëy ñaar ñi ki nga xam dafa jógee ca dëkk ba ñëw fii moom lay jëndee moom lay waxaale moom lay ñibbee ki nga xam maanaam soo demee maanaam fi nga xam ne fu ñu jàppee ne maanaam fii la intellectuel yi gën a toog maanaam lu mel ni ay conseil d'administration bu Sonatel Orange dañ ko fay làkk muy la langue wolof te langue bi dafa dem ba maanaam dafa law ci sous région bi Mauritanie dañ ko fay làkk Gambie dañ ko fay làkk Guinée bi am na part boo xam ne dañuy làkk wolof léegi pourquoi ne pas assumer notre te su ma nee assumer notre langue ça veut dire maanaam nga toroxal yeneen làkk yi mais nga nga dugal suñu làkk bi ci éducation nationale xale yi mën koo jàngee xale yi mën koo am mën ci am xam mën koo jàngee mën ci tekki mais qu'est-ce qui da ngay ñëw ñu indi la la langue française tegal la ko ci anam boo xam ne da ngay jàng liir pendant trois cycles liir ngay jàng yow tu fekk liir lire parcœuriser réciter Sénégal moo tax yaa a que des théoriciens. Mhm. un peuple intellectuel de théoriciens. amuñu un peuple intellectuel de chercheurs maanaam d' experts ni rien parce que suñu lépp dañu ko basé ci liir parcœuriser jàpp na am nañu xam-xam. amuñu xam-xam xale yi nekk fii nga leen jox la leçon ñu war ko mën a rester parcuriser mais ñun langue France bi soo demee France xale yi du ñu parcuriser leçon pour kii ko dañuy dem am benn maanaam moment d'explication moment de compréhension après faire des exos et passer à beneen étape. mais fii lan la ñuy gëmloo am nga composition. il faut nga dem mokkal maanaam le maximum. ñu la ciy dóor ñu la ci def lu nekk jëruñu la dara. Mm-hmm. mathématique bi ñëw ñu war la ko jàngal ci wolof pour nga gën ko mën a comprendre parce que c'est scientifique. tout ce qui est scientifique maanaam inspire le naturel te la moo naturel ci Sénégal mooy la langue wolof nga ñëw ñu naan la ay wii euh, puissance telle puissance telle te loolu maanaam am na ci wolof mën nga expliquer say leçons de mathématiques ci wolof professeur Sahir Thiam da koy jàngale. soo demee présenté wu mais nag da c'est-à-dire parce que da ngay xam ne kon man li may compliqué di wiir yëpp nekkati maanaam ci wolof lii la gën a gaawee. ok yaa ngi woon ci Senghor noonu ñu woon Senghor dafa nekkoon dafa ñëw maanaam nous remettre dans cet environnement de brousse ay nitu àll ngeen pincez tous vos koras frappez les balafons maanaam mooy comme du comme temps négrier yi rek c'est le soir où tu te reposes que tu fais maanaam benn feu autour de la autour jigéen yeeg góor yi ñëw voilà di fecc di danse Senghor loolu la ñu indi te on a dépassé ça Senghor dans l'hymne xam lu mu waroon def dafa roon retracer fu Sénégal jaar limal ñu kilifa sénégalais yi te moo ñu ko njëkk xam parce que moo njëkk judd soo demee Algérie nga dem ay Égypte nga dem ba si Arabie Saoudite bi nii mais pourquoi suñu suñuy suñuy wax seen hymne ñoom ñiy jooy pourquoi ñuy jooy suñu seen hymne parce que xam nañ ne dëgg la ñu def si hymne mais fii Sénégal kan nga mës a gis muy athlète muy footballeur muy handballeur muy ku mu mënti doon mu dem ñu tracel ko suñu hymne di ko tëggal mu jooy amul Mahfouz <laughs> gisuma ko <laughs> musul am parce que xamul tax parce que l'hymne ne nous parle pas parce que mm. hymne bi lu ñu ci bind nekk su ñun da ngay dem da ngay dem hymne Algérie mm. Algérie day retracer son histoire avec la France bay mm. tëkku France ci hymne bi ne ko woo oh, toi France wallahi damal xool hymne bi maanaam li nga li li nga li nga li nga bëggoon fii day jeex intimider France menacé ko na nga dem def def def recherche man j'ai la comparaison des des hymnes mais da ngay ne on a des hymnes qui tout sérieux ay hymne yoo xam maanaam si utopique hymne yu virtuel te loolu du yoon. Mhm. identité nationale xamul tax mu baax mooy dafa baax ba nga xam ne soo tukkee wala keneen su ñëwee sa dëkk day xam ne fii nii am na lu fi nekk mais ñun dañoo tële loolu nga jóge ci nga dem ci état civil Sénégal. Senghor dem bàyyi ñu fi benn état civil boo xam maanaam ñu bëri binduñu xam nga lu gën a grave mooy ngay guverne dëkk ngay diriger benn peuple yow sa réussite fan la njëkk maanaam sa handicap fan la njëkk nekk tu n'as même pas réussi à tout toutes les vies qui naissent ci sa nation maanaam mooy les sénégalais quoi. Mhm. amuñu këyit. heure bi nii est ma ne am nañ mag yoo xam ne du temps de Senghor ñu doon dund ba léegi nii amuñu këyit est-ce que xam nga loolu mhm. man y a des vieux qui m'appellent qui m'écoutent qui m'appellent qui me bëgg voter mais amuñu këyit moo ñu jaaxal dañu la bëgg jàppale mais amuñu këyit nga jël langue wolof yi sànni ko fële impose ñu langue français nga créer maanaam benn fracture sociale maanaam une petite minorité ñoo koy làkk di ko jàng parce que ñoom ñoo am moyen la grande majorité ñoom nga ne leen non il faut lutter contre l'exode rural maanaam toog leen ci àll bi ngeen sàmm ngeen bay soxla leen ñëw Dakar bu leen ñëw Dakar Dakar ñun ñi nga xam ne ñun ñooy solves ñun ñoo jàng ñun ñoo am xel ñun mën nañ ci dëkk ak jéej beeg yooyu noonu ñuy ay réew mais yéen toog nañ ci àll bi ci tàngaay bi et tout pendant ce les autres de la sous-région ñëw tuur sa dëkk li sa doom yi waroon ñëw dëkk liggéey yëpp ñoom ñu ñëw jël ko yow nga toog au nom de la CEDEAO au nom de l'ouverture maanaam sa doomu dëkk yi dem ba maanaam ñàkk seen wërsëg ci seen biir dëkk dañ la naan wërsëg yàlla moo koy joxe sa vrai loolu am na mais loolu maanaam c'est spirituel mais état daa amee maanaam nu muy sécuriser wërsëgu doomu dëkkam ci biir dëkkam. Hmm. loolu du yàlla parce que yàlla